dafa métti parce que man mii di waxee yow maa nii ba léegi nii CNG sama reliquat jotaguma ko. reliquat boobu ba léegi. wër naa alxuraan ba léegi nii may wax yow nii sama reliquat génn ko. lan moo waral lool. parce ngi wax ay problème mu siège yooyu noonu dañ fa am ay siège yu ñu fa sànni loolu la wax mais dem nañ foofu convoqué nañ bi ñu demee aussi tamit wax nañ ñu loolu ñun d'accord nañ jégalu nañ ba ñu jégal ñu mais nee nañu dañuy ñëw defar siège yi ñu ne loolu amul problème ñu wax ñu kañ la mais nee nañ ñu ñu déglu leen dinañ ñu woo mais boobu ba léegi ñu ngi leen di déglu pour ñu woo ñu ñëw defar saisi mais woowuñu. mais est-ce tam du problème parce que combat Siteu bi ak Papa Sow bi damaat nañ fa ay saisi yu bëri bëri. léegi nag boo ngeen koy defar ci nan ci yan situation ak yan condition ngeen ko nar a defar. waaw ñun. seen combat na ne ñaata saisi lañ fa dam. ah waaw nee nañ ñoom <coughs> ñoom nee nañ xam nañ ko. mais waxul nañ ko. non waxuñu ko de mais ñoom nee nañ xam nañ li fa yàqu ci saisi. yaa ngi dégg ñoom loolu la ñu waxoon quoi moo tax tam ñoom la ñuy déglu rek comme ñoom ñoom ñoom lañ fi teg tam ñoom ñooy suñu ay kilifa tamit mënuñu lu dul di leen déglu mais tamit lu ma si mën a wax mooy daal en tout cas war nañu jàppale daal ndax tamit mbër mu bëre boobu léegi xam nga dafa métti boobu ba ñu teesere li nga xam nga nga am ay bor war a am ay affaire yoo war a régler boobu ba léegi amaana tey jii nii sax ñenn si ñu lay ñaana sax wala yenn gars yi nga war a jox xaalisam mën nañ bañ a comprendre mais ñun du si ñun su suñu xaalis moo nekk CNG ñoom lu ñu war a régler lu bëri ba léegi mënuñu si régler dara wax dëgg yàlla loolu tamit ñu si lancer appel di si ñaan xam nga ñu jàppale ñu daal wax ñu ban jour la ñuy ñëw defar séeréer ñu defar ko ñu mën a jot suñu reliquat mën a régler suñu yenn problème parce que yàgg na aussi tamit waa. yàgg na parce que boo xoolee combat boo xamante ne def na presque deux ans moom tamit xale yi nekk ci di bu ñu waajee ba ci ba bés ba ñoo bëre def fulla ak ku ne gis na ne keroog ñoom ñaa joxe nañ mais tamit buñ ñu bëree ba noppi nga téye seen xaalis te ñu war a fay seen i boobu wala lijjanti seen i wala lijjanti dafa métti ndax làmb ñi amuñu ci daal daa dara dara amuñu ko double moteur bi mënul la wax ne la velo bii laa jënd ci làmb mënul la. bilaay yàlla la ko taxoo de au contraire dañuy dañuy def ci làmb dañuy dundal làmb mais làmb fayaguñu dara parce que boo xoolee nii combat bi nii metti na deux ans ñu koy préparé ñu ñëw ba ci làmb ji jàppale ku ne xam ne jàppale mbër day yéex a génn te li ñu jàppale duñ ko jël def ko ci bis bi jënd ci ay billets jox supporters yi moo gisee stade li muy taaru taaru noonu loolu moo ko waral. bokkuñu ak mbër yi nga xam ne tey dañ lay jox ay millions tey nga jël ko def ko sa poche parce que ñun chaque jour ak suñu xaalis làmb ñu ngi koy seen ci kanam en plus tamit promoteur bi nekk jeune di investir ci làmb mënoon jël xaalisam def ko ci leneen mu investir xaalisam ci làmb pour jàppale ñu ku ne xam na ne Quench Double Moteur nekkul làmb boo xamante ni weccet moo koy taxawal làmb la boo xamante ne xaalis bu bari moo koy taxawal du làmb bu yomb quoi. mu investi jël risque jël ay millions yu bëri def ci amul sponsor amul dara kon ñun mbër yi tamit ñoo waroon ñoo war a jaayante ba nga xamante ne tey jii nii maanaam moom dina dina den wàccoo ak ñun moom te wax dëgg yàlla tamit bi combat bi jàllee woo ñu santu ñu gërëm ñu